dina xaw day waar parce que sëñ bi moom bëri moom moom du wax sëñ bi daanaka mënewul wax maa ko forcé ne ko sëñ bi kat mënumaa ñëw Touba ba génn ah te waxuma ak yow parce que tamit wax dëgg yàlla fi jamono tollu ndaw ñi soxla nañ la fi jamono toll mag ñi soxla nañ la kon nag wax dëgg yàlla tey moom sëñ bi même bu doon deux minutes sax di nga ko génn ah waxa waxa wax ak soppe jox leen ay tegtal yoo xamante ni jamono jii kat ku ne soxla na ko te yaakaar naa ni yàlla sunu borom dénk na la ci loo xamante ne nii ah incha allahu Euh, euh, buñ jaaree ci yow rek dina dina sotti waaye nag sëñ bi mënumaa dem ba génn it du ñu waxtaan ci wàllu actualité ku ne gis na fan yi coow li nga xamante ni euh, moo dal kii di Ousmane Sonko. coow li coow li du ñàkk nag nga am ci xalaat boo xam ni dina wuteegu nit ñi teyit sa xalaat yaakaar naa askan wi dañ koy déglu sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. di wax ne Ousmane Sonko moom suñu borom ci boppam moo ko dimbalil boppam ni mel du kenn ku du suñu borom kon képp koo xam ne eh, ni mu mel nii eh, ënd koog moom daanaka ci naqaru ci dëkk ni mel yàllaa ko mel noonu nañ ko ñaan yàlla dafa ko jàmm rek mm-hmm. te ku xam ne moom li mu bëgg mooy jàmm rek te gis ñu gisul kenn fu mu tooñ kenn moom mi ngi si jàmm salaam buñ ko mujjee mu wuyu ji kon nag yëpp eh, waaye nag lépp maa ngi delloo ñu xam ni lépp na président Macky Sall def jàmm si réew mi rek jàmm ci lépp nekk mm-hmm. waaw ma ñëw ci wàllu ñaan yàlla ku ne xam na ni ñaan mooy ngàndaayu jullit mm-hmm. uh, ndaw ñu bari di ko sàgganee mm-hmm. uh, nga am loo xam ne yàlla sunu borom dénk na la ko ci mm-hmm. fi may njëkkee moo di wàllu seet wàllu seet seet ak ñaan waaw ñëw ci wàllu ñaan maa ngi nuyu ñëpp di ñëpp ba tey rek nga xamee ni seet nit ki képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga woñ suñ suñ téléphone di ñaan loo li njëkk mooy listixaar listixaar mooy seet buñ la seetlee ba noppi nag cee doog doog laa mën a ñaanal ndax suñu moom dañuy waaye te baytu min abwaabihaa yàq di nit ki bu dee néega seet mooy bunt ba nga ko mën a nit ki mënu ma ko ñaanal te wax dëgg yàlla seetlu ma ko ndax bu dul lor rek ma xam dëgg dëgg dama ko ñaan te seet mooy tànnloo yàlla ndax mag njëkkin sax bu mosaana bindu téere sax parce que listixaar ba xam te ni mu demee mhm. ma ko ñaanal te seetlu ma ba noppi ci mhm. yan anam ngay far di seetee parce que am na ñoo xam ne dañuy seetee à distance mur ci nga xam ne leen seetal wala nit ci yan anam ngay far di seetalee danaa seet ñaar yëpp danaa xaar fanaanal même bu nit ki bu ma woowee fa sensé rek soo yónnee tur waajuram mu góor ak waajuram mu jigéen ak turam dëgg-dëgg ci kàttanu suñu danaa ko seetal te moo ko seet ma waxee dana jàpp man dama koo xam ndax seet moom dafa am lu ma ci yàlla may lu wér loo xam man xaman ak sama bopp moom lu njëkk li yàgg na ma ñaan loo te wax dëgg yàlla tey laa tey ngeen a ñëw fii di ma jël ci mhm. waaye yàgg naa ci loolu wax yàlla mhm. kon nit ki ak fu mu nekk bu ma woowee téléphone Eh, yónni tur waajurum góor ak waajurum jigéen ak turam mi nga xam mooy turam dëgg-dëgg ci kàddu gi wala naa ko seet du ma ko seet ko daa ko xam. Mhm. waaw am na solo ma ñëw ci li nga xamante ni moo di wàllu nopp yàlla sunu borom am lu am lum la ci dénk. Euh, euh, nga ci liggéey anam boo xamante ni dama naan bari na ñu koy liggéey waaye mosuma gis ku ci mel ni yow bari na ci ñoo xamante ni dañ doon bëggante seeni i wayjur duñ d'accord ci sëy bi wala dañ daan bëggante dem nit ñi di yàq sëy ba mais képp ku mus jaar ci yow yàlla suñu boroom dimbali na leen ba ngeen boole leen ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad li nga fas ci ay sëy kenn xamul nu mu toll. Hmm. ci wàllu nopp. waaw nopp moom yàlla dama si defal tawféex loolu moom loo dib ba ma nekk daara jay jàng moom la woon wax dëgg yàlla dib ba ba ma nekk daara jay jàng moom la nit daan ñëw daan ma liggéey la ci wàllu nopp muy loo xam ne yàgg na gëstu lool te muy loo xam lu yàgg ci man la wax dëgg yàlla képp koo xam dafa am jigéen ku mbëgg waaye nag nit koo xam dafay caaxaan bul ma woo surtout bul ma ki may noobal dëgg-dëgg mooy ki nga xam ni sa njaboot la nga bëgg ñëpp ñu nangul la wala it sa soxna nga bëgg mu topp la wala koo xam ni euh, jigéen koo xam dafa bëgg borom këram nangul ko yooyu yooyu yëpp dama dama koy nopp hmm. waaye bu dul rek képp koo xam day caaxaan rek moom bu ma woo hmm. man lépp lu may def nii lépp ci yàlla maanaam ci lu wér laa ko teg hmm. du caaxaan mukk lan mooy sa secret ci nopp ba nga fas ci ay sëy yu bari. waaw un sec euh, nopp yàlla dama si defal tawféex nu nekk aw yoon wu nekk laa si am yoon wu nekk laa si am nit bu ñëwee ba ma xam tabixaam man bu boobaa danaa xam ban nopp la moom ci kàttan suñu borom. Mhm. ba suñu borom eh, dafa ko tawféex. Mhm. Mhm, na solo mu di Cheikh Abdou Wahab Diop ah. ba tey damay des ci wàllu ñaan euh, wàllu papier. Euh, damay wax ni sa wàllu papier xaw na différence ak ñeneen yi mm. euh, parce que euh, papier ñu bari buñ ko waxee yaakaar nañ ni mooy ki tukki bëgg a ñëw donte ci la bokk. Mm. waaye ngay yëngu ci wàllu papier noo xamante ni maar day taale. Mm. muy ki nga xam ne de déposé di liggéey ci entreprise. muy ki nga xamante ni sax dafa am jafe-jafe ci ay kër mën naa joxe exemple ci ci miraas ñuy xëccoo ñu ko fay néewal doole. Mm-hmm. secret wàllu papier. waaw nga laaj bu am solo muy nit ki lu xeetu ko wàllu rek. ci kàttanu sunu borom moo xam ko nekk ca réew ma te bëgg ay kayit ngir ñibbisi wala ki nekk fii bëgg ay kayit ngir dem réew ma wala ki nga xam ne maanaam danoo euh, lii këram daal fexe ba nangu ay kayiti këram. Mhm. ci kàttanu sunu borom bu jokkoo man man wallaahi alxasim dinaa taxaw taxaw xam dana xam ne yàlla maye na te lépp dara gën ci arxuwaan dara gën ci arxuwaan maa naa fi kitaab ni sayin arxuwaan ut dara ci kàttanu sunu borom waaye nag lépp lu ma defam nit ki daal ak lu mu mën doon. naka jaar la yoon rek man daal du ma def ci lu loo xam ne ay caaxaan la moom waaw. Mhm. ki nga xam ne day déposé liggéey. ki nga xam ne dafay déposé liggéey balaa ma fay dem fa mu liggéey wala bu duggee moom na fexe ba jokkoo man su ma xamee usine ba mu bëgg liggéey wala nu mu fa bëggee ci kàttanu suñu borom su ma ko defal la ko defal ci kàttanu suñu borom dana fa yàgg ba. mooy dem ba ba génn génn rek mhm. kenn du ko mën a ci kàttanu suñu borom mhm. waaw euh, sëñ bi ma ñëw ci question boo xam ne nag ndaw ñu bari ñoo ma ko yóbbante hmm. soxla nañ ko lool te jaaxla nañ hmm. muy wàllu kaaraange Mm. ndaw ñaa ngi uti ndaw ñaa ngi dem fu nekk. Mm. mais kaaraange. Mm. moo desee doon seen wéruwaay wàllu kaaraange. kaaraange laaj nga laaj am solo muy nit ki waxtu rek saa su nekk nay jug ci boppam kaaraange ndax kaaraange da ngay gis nit ko day jékki-jékki rek dara ër yóbbu loo xam lan la moo tax kaaraange nit ku nekk war koy sàkku sa bopp. kaaraange nag wax dëgg yàlla yàlla defal na ma si feex juree joo xam ni képp koo xam ne yàlla dogal na nga woo jëm ci wàllu kaaraange. danaa la jox loo xam ci kàttan suñu borom bis boo ko jëfandikoo na la ko waxee dana la aar ba aarale say njaboot aarale sa kër tamit ci loolu ci kàttan suñu borom moom amul lu sikk sàkk moom mm-hmm. loolu yàlla defal na ma wax dëgg yàlla mm-hmm. waaw loolu moom lu yàgg ci man la wax dëgg yàlla mm-hmm. ñaan moom mu yàgg naa si loolu man dar man lépp nag dara gis artoir sama mbir yëpp artoir la waaw te dafa mel ni sax nit ki euh, bala nga koy ñaanal danga ko war a aar ba pare mu wàllu kaaraange waaw ah, ah. waaw ki exemple bu fekkee da bëgg dara te heure woo loolu bu ñëwee mën naa a gën ci yow. Mm-hmm. nit ki boo ñoddi da ngay def doo ko doo ko jàlb maanaam jañ doo ko ñoddi. Mm-hmm. boo jo boo jañee ba boo ñoddi la nga ñëw bu ñëwee dana gën ci yow waaw boo jekk ñoddi te xamul nu mu ñëwee. bu ñëwee mën na laa euh, mhm. ma ñëw ci li nga xam ne moo di wàllu samp xam naa nag da nga may jéggal parce que bëri na ci ñoo xam ne <laughs> euh, bëggoo sax ma di ko wax waaye dinaa ko wax ndax tey ji mën naa ne ñu bëree ngi xëccoo ci ci ci wàllu nguur gi mhm. ay député wala mën naa ci wax ay maire du ma mhm. dama du ma du ma tudd seen tur nag yàlla suñu borom jaaral leen ci yow ba nga samp leen ba tey ñuy defaraate wàllu samp waaw walaaj nga lu am solo muy loo xam jamono yu bari na lool te wax dëgg yàlla nit ak lu mu mën doon moo xam bu dee maire la bëgg ko samp wala muy liggéey wala ak lu mu mën doon ci kàttan suñu borom bis bu jokkoo ak man ba ndéggoo ci man nag wax dëgg loolu moom du ko jaaxal mukk dama koy wax li ma li may defa dëgg-dëgg ko mënul wax mu xel keneen yàlla may bari na lool momence gën néew li si am am solo mooy mm, képp koo xam da nga bëgg la samp moo xam président wala maire yi wala lu mu mën doon ci kàttan suñu borom bu ñu danaa defal loo xam da nga teg sa bët loolu mul mi moom wala nit nga wala ngay liggéey ci barab te bëgg faa sax ba tey loolu mi ngi ci biir. Mhm. waaw. Mhm. yaakaar naa li nga ci am ci ay taalibe kenn xamul nu mu toll. waaw ba tey maa ngi nuyu seer ñëpp nag ndax wax dëgg yàlla. Mhm. fii ni nga toll nii am nañu jàkkaarloo ñoo xam xam nañu baax xam nañu yàgg nañu jëflante gis ñu mus ñu maa gis. ñoom ya ñi ngi ñi ngi te man te mus ñu maa gis. kon nag loolu ñoom bu mu déggee dana xam ni maanaam bëgg njariñ lu yaatu rek moo tax ma génn fii. Mhm. waaw d'accord euh, ma ñëw ci li nga xamante ni sonal na jamono ju bari sama sonal na jamono ji ñu bari mu di wàllu jafe-jafe am doom nga xam ni daanaka ñu bari sox demoon nañ ba am yaakaar ni duñ amati doom yàlla sunu borom jaarale leen ci yow ba alhamdulilah tey ñu ngi seen i sët. waaw lay am solo jamono ji bari na lool waaye nag nit ki ak euh, bu dee ku jigéen ki la wala am doom wala mu ku góor ki. mën naa nekk ci góor ki mën naa nekk ci ku jigéen ki waaye lu ñu mën doon dañ ko seet bu ñu ko seetee ba xam ci ku ci ku góor ki la ñoo xam bu dee jigéen ku ñoo xam waaye ku mën doon ci kàttan suñu borom li ne def bu la ko defalee ba nga sa borom kon ci kàttan suñu moom léegi ne ma li tawfeex incha bi mhm. incha allah mhm. waaw euh, xam naa nag fi may jeexalee mooy feebar bi nga xam ni moom mooy feebar àdduna ndoxu siti mhm. ballottement hémorroïde sonal la ñu bari waaw yooyu moom mm, xëy na sax du yëpp laay faj waaye ku yàlla def tawfee ba nga wooma nga max xool xam la la man danaa xam la ma sax bu ma a ma ko mën a saafara yabal ci ñoo xam ni ñoo mën na ko saafara. Hmm. dégg nga incha allah. Hmm. Euh, cheikh bi du ñàkk ni bët day fattu. Hmm. boo amee loo xam ne yaa ngi ko bëgg a dolli te moo fàtte ko. waaw li ma doon mooy mbirum kartan a ah, yàlla dénk na ma si loo xam ni wax dëgg yàlla nit ki. saa soo xamee ni jël téléphone woo ma waaye nag bal maa xam ne il faut ma xool ko ba ba noppi hmm. bu dee kattan nit ki nag bu fekkee xam ne moom manqué na kattan hmm. su ma wooyee bu soobee ci kattan suñu borom moom loolu lan moo tax kattan gi wàññeeku wala lan moo tax maanaam li nga bëgg dëgg-dëgg ci kaw ci néegu say amoo ko waaye lu su mën dañ ko seet bu ko seet ba noppi dana xam rab moo ko waral wala lu ko waral ñu mën ko ñu sal soobee saafara ko ci foofu laa ñëwee wàllu rab nga xam ni daanaka léegi euh, euh, dangay ngay jiit léegi nit sax mu jékki-jékki daanu ñu naan ay malaise la alors que rab moo ko sonal wàllu rab. waaw rab moom mm, maanaam am naa ci secret képp koo xam rab moom mën naa laa jox <laughs> tegtal bi waaye rab moom moom dafa as boo xam da nga fa nga toll man koo liggéey moo tax dégg waaye bu képp koo xam ne rab moo daaneel muy waaw muy rab boo xam ni dafay rabu euh, ndonu wala rabu boo xam dalaa dalaa dab ki nga xam rab da koo dab. su ñëwee ci kàttan suñu bopp ak safara waaye ki nga xam ne rab da ko ndonu moom kooku mën nañu koo jubale waaye faj ku wér moom dina xel ñeneen ñi gën a soo yàlla. Mhm. jërë jëf mbokk yi nga xam ne yéen àndoon ak ñun dañuy siiwur tey moom laa dalaloon mu di Cheikh Abdou Wahab Diop. waaw léegi nag maa ngi nuyu ñëpp di seer ñëpp it di balaax ñëpp di wax ni li ngeen bëgg mooy njëriñu nit ñi rek ndax bari na ñoo xam ni yàgg na bëgg mu dugg ci lool mu génn wax waaye tey la ko yàlla doog dogal. maa ngi ñuy ñëpp di siyaar ñëpp nag mhm. mu ngi noonu mu di Cheikh Abdou Wahab Diop boo ko soxlaa numéro telefon baa ngi noonu di daw ci service commercial boo ko woowee lépp loo xamante ni sa aajo la incha allahu rabbi te mu nekk sa jafe-jafe yàlla sunu borom dina la ci taxaw ba sa lépp faju bu soob yàlla di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.